jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak seen site internet bii di bës Buzz Actu 221 li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy doore kat yi nga xamante ni kii di Mamadou Lamine Diallo daal dina koy yëkkati rek di rafetlu démarche bi nga xamante ne rek njiital réew mi euh, daal dina koy jël ñeel réforme protocole yi nee na nag président Bassirou Diomaye Faye nag daal dina koy satisfaire euh, ci lenn li nga xamante ne rek moom mooy yàgg nekk doléance mu nekk geste boo xamante ne rek mu ngi koy témoigner ak ouverture ñeel bi ak lépp loo xamante ne rek daal dina koy jël rendre ko compte mu ñeel aspiration ak lépp loo xamante rek dafa ñeel a ñor wàññi cérémonie yi nga xamante rek moom la ñu dippee cérémonie euh, protocolaire yoo xamante ne rek daanaka gisul woon benn yenn njëriñam ndax ay voyage yi nga xamante ne rek moom la doon président di faral di def wala ñu koy accueillir buy ñëwee moom lañ daan officialiser ki nga xamante ne moom mooy Mamadou Lamine Diallo ñu xam ko nag yëkkati rek position di exprimer nag li nga xamante ne rek moom mooy satisfaction bi mu am ci dogal bi nga xamante ne rek moom la président de la république euh, daal di jël ci ab message nag euh, gis nañ ko ci rek mu yëkkati ay kàddu reconnaissance ak ay soulagement mu daal di déclarer nag nee na mbir mu nu mel daal bu symbolique la te nag mérité na ñu daal di koy euh, xam nee président de la république daal dinay satisfaire lenn ci li nga xamante ne rek revendication la bëggoon na ko ñaxtu ci biir gouvernement bi ci mobilisation yi nga xamante ne ñu ngi koy nemmeeku ci aéroport di accueillir wala sax ñuy gunge bu fekkee président de la république dafa jël départ wala muy ñibbi si protocole yi nga xamante ne rek yu nu mel nag depuis temps colonial ba nëgë ni rek ñu ngi ñu ko imposé rawatina nag gouverneur général bu AOF mbir ndax nag décision bu nu mel dafay wane ne rek autorité yu yees yi nag envisagé nañ lépp loo xamante ne rek dafa ñeel nag rituel euh, protocolaire rituel protocolaire yi nga xamante ne rek dañ ko doon associé ak ay déplacement présidentiel ne na nag bu ñu jeexalee jëf ju ñu mel nga xamante ne depuis temps colonial ba nëgën ni rek mi ngi am euh, kon nag kii président Bassirou Diomaye Faye nag daal dinay wane signal boo xamante ne rek euh, signal yu soppeeku la ñeel adaptation ak réalité yi nga xamante ne rek depuis temps colonial ba nëgën ni xoolaat yan mesure la ñuy xool pour def li nga xamante ne rek moom mooy yooyu les pratiques bu ko defee rek ñu mën a jaarale nag yenn réforme yi ba noppi rek xool yan avantage la am ak dépense publique bi nga xamante ne rek jamono ji jot nañu renforcer ko ci efficacité jaarale ko nag ci institution gouvernementale bu suñu réew jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir mën a am yeneen xibaar